bien sûr parce que école la donc euh, loo xam ne école la euh, di ko ci nga ciy jàng milieu showbiz bi dama ci jàng moo tax ma maîtriser ko maîtriser boîte de nuit maîtriser gérant de boîte yi maîtriser showbiz bi les artistes tey de passage euh, may nuyu Wally go Seck moom moo ma sagal moo ma way may ma oto parce que loolu sac la quoi du xaalis bi mu may jox sax anyway mais euh, ki la yëg ba way la ba tout récemment vendredi bi passe tamit soirée bi yëpp tamit di ma way di mu tudd donc loolu fierté la mag sama jabar ci moom ci moment bi ak niveau bi mu toll mu toll sur euh, niveau boo xam ne sur le plan international il est connu sur le plan national il est aimé il est connu mu nekk euh, phénomène boo xam ni nañ ko ñaanal yàlla parce que yàllaa ko def noonu am na ñu ko jiitu ci aar bi ba pare générosité bi booy bi am ñi ay baayam yi nekk ci aar bi sax defuñu ko duñ ko def baayam yaa ngi ci aar bi yor xaalis yor société yor lépp mais ko ci doo ci gis kenn ku la ci romb sax ñoom bañ nañ ko ba du ñu yor sax seen carte du ñu yor sax argent bu ñuy génn ndax bon ndax nay ndax ndax ndax ndax iñaan c'est vrai xam nga man ci digg bi laay jaar booy bi boo gisee ñu naan dafa baax dafa moom saa yu génn dina yor dina yor liquidité. tey un Cheikh Amar saa yu génn saaga mi day am xaalis cas social mën nga daje cas urgence boo xam ni doon jéego laa dajal mais jox ko parce que yaakaar na la xam na ni am nga xaalis xam nga li ma la du ma tooñ mais artistes yi may wax ñu nekk milliardaire waxuma waxuma la millionnaire xam nañu li may wax ñi may dajeek ñoom ñëpp du ñu yor liquidité benn artiste nga fii dajal Wally Seck moo yor liquidité ci otom wala ku mu àndal laaj la li nga yor joxe ko benn artiste moo ko fii def te xale bu ndaw la juddoogul Wally waali tu vois te ñoom ñuy wax yépp ci booy bi dañu fan booy bi wala seen ndey bëgg nañu booy bi wala seen baay bëgg na booy bi voilà mu am tamit beneen affaire bu bees bu am ci côté showbiz bi comme ni ma ko waxee ni ma ko maîtriser tey kaawu Sidi Diop di Diop mu ngi soog a jóg Wally taxaw naa 2STV télé bi gën a nganda ci Sénégal ma ne ko waali biñ koy concurrence ak Youssou Ndour ma ne ko regleel Youssou Ndour sa baay la effectivement Thione Seck ñu invité ko Sidaat émission kër gi bi mu doon def mu ni ñu Sidaat laaj ko problème Wally ak Youssou Ndour Thione Seck il était ému mu ni mais man sax affaire bi daf ma dépassé Wally Seck Youssou Ndour baayam la li doon jéego waxoon effectivement Sidi Diop Youssou euh, Wally Seck waxuma sa mag la mais sa baay la sa baay la toog nañu itali en plein euh, restaurant j'avais Khalifa Bijou euh, Bouba soulage ak euh, Waly ak man ñeneen gars yi Torino lañ jóge woon ñëw ay gars yi waale la ñu ñu doon indil waale ay affaire bon ñuy waxtaan première sortie album booy bi ñu apprécier ko effectivement mën na way cantal booy la mais toujours entourage yi ñooy tilimal wala yow label bi lay produire ñooy ñooy tilimal après yow defe ni dañuy ut buzz ci yow wala dañuy ut label label bi buzz ci pour label bi wala turu orchestre bi wala yow sa tour en personne la sa chanteur fekk ñu ngi lay yàqal yaa ngi am ay noon xool réseaux sociaux yi yëpp commentaire yi loo ci gis mais ñëpp a mere booy bi mais ay bomb ana sécurité label bi géré booy bi suba teel maxu sama gain la de passage manqué nuyu mais ana sécurité maxu Matar Diop suba teel. tu veux dafa am foofu quoi. mais oui c'est pas vrai ñoom la seen biir. mais kan moo am fit Wally am na jotu booy bi dem di dugal ay bomb foofu di tastuwaarem. doon amoo ci preuve ak loo tey tey dëkk am preuve yu leer xam xam nga lan mooy preuve yi. le vendredi même vendredi bi entrée Wally trente mille la woon porte bi entrée di porte bi cinq mille francs la woon tey bu Sidi yàqoon soirée Wally on peut considérer digérer ça parce que tey sama entrée cinq mille la kay entrée trente mille xaaral ma yàq soirée bi yeah. table yi VIP yi table yi un million la commencé man maa ngi foon maa doon gérer lépp wàcc cinq cent mille wàcc trois cent mille wàcc deux cent mille Sidi Diop VIP am dix mille francs la imaginal benn ticket mari ñëw jënd benn ticket wala sira trente mille dugg benn personne la VIP Sidi Diop five ci kaw VIP bi pour nga dugg fa dix mille ngay fay léegi il faut que beneen dix mill beneen dix ñetti nit dinañu dugg muy benn nituwaal yi entrée 5000 léegi nga jënd benn billet 5000 man ma ñëw jënd benn billet bu 5000 boobu ma à la de 30 000 ñaata billet la du 6 donc man sama benn nit yow représenté na 6 si sa nit nu may yàqee sa soire il faut arrêter Sénégal yi ay dañu bëri ay naaféq dañu bëri ay fumier man je maa ko wax ñoom xam nañ sax sama wax du ma neexal du ma leen neexal sama yaay rek laa lijjanti ak sama jabar ak samay doom mère ba dee na maa ngi sama jabar waaw maa taxaw barki dem ba émission bi ma def benn waykat laa am Wally Seck la na ma yeneen waykat yi mere lu may jëriñ. Eh, Wally Seck sa waykat la moo tax nga koy défendre wala eh, da ngay logique. non non non non non dama défendre cause boo xam ni dëgg la c'est vrai te ñoom ñii ku ko ci seetaan dinañu xam ni dëgg la booy bi na liggéey dem demagul fenn tubaab yi xamaguñ ko te Youssou Ndour international la star planétaire la tey. Euh, euh, raison pour laquelle bi fi président boobu ñëwee Obama avant muy tal président Macky Sall sal ngi la nuyu de passage chérie madame Faye Sall Goudiache yee sama waay la nag président liggéeyal yow tamit liggéeyal pétrole beeg gaz beeg yëpp gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi bàyyi xel liggéeyal comprendre nga dafa ne takk aéroport jubal ak jabar yeeg doom yi si Youssou Ndour mais parce que way moo ko ko may daf ko liggéey way moo ko ko may daf ko job Youssou daf ko job affaire bi réussir yàlla def adduna yëpp xam ko tubaab yi Sénégal Youssou Ndour Indo shit foo dem ginnaaw àdduna Youssou Ndour waale ñu ngi koy commencé xam mi ngi dem Amérique barki démb di photo ak star yi te yónnee naa la sax affaire yi tu vois booy yooyu ñoom Chris Brown ñi voilà mais donc Sidi mën na way suma booy la daje nañu barkaati démb mi ngi nekk wetu kër Pam Ndiaye soirée foofu la dëkk ñu nuyonte nice bien ok mais na déglu tey ñaka jege tey mère Diagne na ba faal boobu xam xam naa fi mu teg di ak beneen doomam ji kii Iba Sey de passage maa ngi koy nuyu Iba bi mu yegee lii sax choqué na choqué na parce que tamit waali du dem di yóbbu ay bomb wala di yebal ay nit ay bomb bomb ana Sidi Diop couvrir Bass Thioung couvrir euh, Ibra Nadio couvrir Pape Diouf waaw euh, donc est-ce que moom Pape Diouf ñu ngi liggéey ba tey. ñu ngi liggéey ba tey non maxu nit ku baax la maxu moom yàgg naa wax ci télé bi nit ku baax la ñëpp artistes yëpp ko bëgg mbër yi ñëpp ko bëgg mi ngi liggéey mi ngi liggéey mais ñu nekk ci ginnaaw maxu suba teel ñu ngi liggéey ok ñi nekk ci orchestre bi Sidi Diop ñu ngi liggéey mais phénomène bi a mbër ki démb dañ leen di blâmer mën nga def liggéey pendant dix ans benn jour nga def lu ndaw ñu fàtte la nga defoon loolooy esprit Sénégal. fàttali nga waxoon mais dañuy dellu siwaat tuuti rek ci problème bi yow yaa ko soulevé nag euh, ñu gis Omaro sa collègue la yéen a nekkandoo de CV def benn sortie euh, wax ci ni que ni dañ leen yàqal seen soirée dinañ riposter et cetera et cetera euh, comment t'as jugé sa sortie innocent xamul dara ci li muy wax xamul dara ci li muy wax parce que opposé wu na wax ñëpp xam ni li muy wax un kilomètre kii waaye mi ngi fii un kilomètre xam nañ ko ñi ñi ci ñu ko rëm wax ñu rëm waxi dof la wax wax bi mu wax tegu ko fenn amul benn valeur ci wax boobu amul benn sens ci wax jooju man dama ko ci mere parce que ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll warul défendre noonu te muy animateur ci waa maa ko gën a mën a défendre man Wally Wally defal na ko lu nekk gisoo voir yi lu ne tagg na Wally def na lu nekk ci Wally Wally defal na ko lu nekk mu taxaw ba tegal ko chaise ni ko le roi di mbalax ñaanal ko ñaan boobu moo topp Wally léegi mu bëgg nag sama xel waali xale bi jarbaatam la mi ngi soog a jóg toju tojagul fenn. mu bëgg jàppale waali ba waali egg fii la bëgg a jàppale. waaye mënul non waali yàllaa ko yegal foofu ñaanam bi sax dama rëcc ni ñaanam a nangu naa ñaanam nanguwul yàlla moo ko gérer loolu benn ñaanam nanguwul li moo xamu ci tous oui je je prends mes li mu wax ñëpp yow gis nga ko gis nga ko gis nga commentaire yi yee commentaire tey boo leen jege woon yow dañuy saaga sax booy bi dañuy saaga Omaro parce que loolu du cëram yee dafa war a yow ki la defal taranga mais da koy xam ki nga yéene yow mu nekk roi des arènes yow waxal rek ñi ko def ba uh, bàyyi nañ leen ak yàlla wala ñi ko def dinañu def suñu enquête ba xam ko mais bul bul bul bul accusé ñëpp a xam ni booy bi la accusé ba ñëpp naan waali amul jotu booy ba pare loolu sax day yàqal booy bi day yàqal yee